coalition Benno Bokk Yaakaar mel ni rek dafa nekk ci guddi bu bët setagul ëllëgam daal di lëndëm bu baax a baax gannaaw buñ tàmbalee nemmeeku ay parti yu tàmbalee jël seen yoonu bopp li ni mel nag daal di jur njàkkare bu mag a mag bu si mujj di parti bii di URD tey ki mel ni Diégane seen daal di koy jiite dañoo fas yéene génn ci coalition bile daal di demal seen bopp li mel nag doon crise buy tàmbali. waa mën nañu wax dina jafe moom euh, parce que ñoo yore nguur euh, fukki at ak ñaar waaw léegi ñu ngi dem ci opposition ni ñuy nar a toogee ci opposition nag jafe-jafe lay nekk ndaxte boo xoolee euh, fukki at ak ñaar Macky moo jiite woon coalition boobu tey ji Macky mu ngi ci opposition bi jóge dina jóge ci boppu APR loolu dina indi jafe-jafe ci biir APR ak ci biir benn seen ëllëg nara metti lool gannaaw bu ñu buñ waatee ci opposition bi tax na ba laaj bi samp mooy ana kan mu war a mën a jiite coalition bii di Benno Bokk Yaakaar gannaaw bu Macky Sall demee ba noppi Mamadou Sy Albert di ñu xamal ni dina doon lu jafe ngir rek ñu nangul ko Amadou Ba. ci lu ñu nangu ci suñu tradition mooy que Amadou Ba mooy chef de l'opposition normalement parce que Diomaye mooy président de la République moom mooy chef bi chef de l'État mais Amadou Ba moo nekk chef de l'opposition est-ce que APR dinañu nangul loolu Amadou Ba mais bu dee bennoo rek PS ak AFP mën nañu nangu Amadou Ba nekk seen chef de de de de l'opposition nekk chef benn. déggoo bu parti politique yi daal di déggoo ngir rek ànd ci Benno Bokk Yaakaar mu mel ni rek li ni mel dafa daal di néewal doole bu baax a baax yenn parti politique yi. yi nga xamante ne ni. dañoo yàgg jàpp ni ay parti am doole la fii ci Sénégal. est-ce que dinañu ñeme xeex euh, Pastef Euh, ba am dara ci les législatives jàkkaarloo ak euh, président bi ak Pastef waaye loolu aussi euh, laaj na laaj nañu en tout cas ñu dëggër gëm aussi. xeexandoo gañandoo wante it doxalandoo ci nguur gi li ni mel nag doon lu président Macky Sall yàgg gëm mais tey mu mel ni rek loole dafa tàmbalee jeex gannaaw bu ñu ñàkkee nguur gi xanaa rek di xaarandi ba xam ana ñan ñooy wéyal seen àndandoo. ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar